communiqué de presse coalition Adiana coalition Adiana mingi ndokel ak a sargal le président de la république ci ndam lu reuy li nga xamni ni am na ko ci élection yi ñu wessu ñu fal ko ci 58,26% coalition Adiana mingi ngi rafetlu bu baax a baax euh, ni nga xamni ni la élection yi demee ci jàmm ba président Macky Sall gagné ko ci amul ben werante amul aussi ben recours ci conseil constitutionnel coalition Adiana mi ngi rafetlu bu baax euh, tànn gi nga xam président Macky Sall wóoluwaat na son premier ministre def ko muy ministre d'État def ko aussi secrétaire général à la présidence di aussi gouvernement bu bes bi nga xamni fal na di len ñaanal ndam ci li nga xamni mom lañu mom lañu moom jublu ci lolu coalition Adiana mi ngi wat président Macky Sall ni ko ci li nga xam ne moom la dogal ngir supprimer post premier ministre bi ak it gaaw gi nga xam ni moom la am yéene yëf yi gën koo gaaw loolu aussi mi ngi ciy rafetlu bu baax ca di ci ànd ak moom. coalition Adiana day wéy ci jéego yi nga xam ne moom la tàmbali woon di ko ànd ak président Macky Sall ngir liggéey ba nga xam ne nii ànd bi mu àndoon ak moom depuis 2014 ci dëgg ak luy. suqali Sénégal ñi ngi koy xamal ni ci loolu la ñuy wéy ñun waa coalition Adiane kon dañuy profité ci occasion bi rek di xamal ni li nga xam ne moo taxoon ñu battre campagne ngir ànd ak moom ci suqali Sénégal depuis 2014 loolu ba léegi incha allah coalition Adiane du ci tenkit du ci teggi du ci teggi tànkam ñi ngi continuer di am bu baax a baax confiance ci président Macky Sall muy militants yi jeunes yi femmes yi cadres yi ak yëpp sympathisants di bokk ci coalition Adiana wala ñu bokk ci alliance pour la paix et le développement ñi ngi renouveler bu baax confiance boobu ci président Macky Sall di ko renouveler aussi ci suñu président Thierno Lo mi nga xamni euh bañu dalé and ak mom ba légui ci ndam président Macky Sall ak ndam lu yita euh, coalition aljana ci loolu la nek